production le Don King de l'arène le sauveur de la lutte sénégalaise dikkaat na ak ci beneen affiche affiche bu nar doy waar diggante Reug-Reug ak Sa Thiès hey combat de l'enfer combat de l'année muy am ce dimanche 5 mars 2023 ci arène mars la ñu wax deex est-ce combat bi duñ ko bëree planète Mars ndax coow li ci nekk combat bi le combat de tous les dangers diggante Sa Thiès ak Reug-Reug ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk xaalisu lamb lañ liggéente Reug-Reug mu alaaji Papa xam ni champion la ca MMA waaye tamit lutte simple la ca lutte avec frappe champion la ca waaye kii nga xam ne moo di Sa Thiès koy doomi Double Less di rakk ci Balla Gaye ndaw combat bu doy waar lii production ànd ak Makan Mbeng daal di koy delloo ministre sport mu di monsieur Yankhoba Diattara neex mooy dañ ñu koy may en direct fii ci Sénégal ansor bu mag bee def loolu mu di 1xBet bu dee bitim réew nag pay-per-view koy seet. xale ñu dugg ba tey ko bàyyi ñoo ko gën lan moo tax nga doon insister bi ñu la jëlee boobu sax man du man maa la jël Lamine moo la jël man maa ngi la jëlee woon ci saal bi nga ne li ma ciy metti mooy làmb ji dina jeex nga ne saa dañoo yëpp war naa xaar ba ci kanam lan moo waraloon kàddu googu parce que ñu ngi la ko dencaloon def vaar yi rek moo ci des. mooy li ma bëggoon jixaat combat bi diire ta neex mais moom dafa daw raag bi man la ma nan wax. xeex da lay sonal déedéet dama ne. Hmm. fii amul ko mën a bëri amul ko mën a xeex. bari dóor la ñaar ko sekk te ñaar ko sas te ñaari yu lañ sekk du dëgg làmb ji xaaroon nañ ci dóor ba ñu sonn doog ci xaar bari am na nag ñu ko xaar mais moom ci côté moom musul ñeme sax wàllu raag bi musu koo ñeme ndax ma dëgg ba mu ko xoolee barkaar xuraan xooluma seen bëri ñeent pourtant nee na da ragal. billaahi wal mais loolu moo moom fu may doo gisu ko. nee na da nga koo ragal ma ne ba léegi ma gis muy laaw di sànni te loolu ngeen xamee woon Sa Thiès man loolu ma jaaxal parce que man tamit dañu wax ci dëgg man mi ko dóor ci kanam ba ne ko tey. loxo bi gën a néew moo ko dóor mu mu mu mel ni ku pétroliser. gos bi bii da laa ko bàyyi moom moo pétroliser moo tax lu mu am ci deuxième bi fa la ko bàyyi. ko nag jëlal sa at nu jëlal sa jëlal sa cas daal dernier site bi moom li mu am lépp def na ko ci daan la jël drapeau Yankhoba Diattara yóbbu ko këram nee na nag ci biir géew bi li fi xewoon lépp dégg na ko nee na sa mag daa wane a wane bon exemple comme ni mu ko waxee rek laa waxee ñun moom duñ nettali waaye lu njëg mu siiw na sa mag koo saaga. barki leeru alxuraan billaahi moom moo saaga sama mag dafa ñëw seex bu rëg rëg nuyu Omar wallaay lazim boo dee li ma fekkee tam mu wóor ma te wóoru yàlla. te wóor na ma yàlla rek moo ma tiim. Cheikh bu Reug Reug dafa ñëw jàmm nuyoo ak Omar. Omar na ko Cheikh na nga def. Omar Omar ci boppam ne Omar kan na def def. man ko maa ngi fi gaynde ñoom ci boppam ñoo saaga Omar. barki alxuraan Omar na leen fair fair play leen respe dama leen di jox respect bu mat sëkk. c'est que leen rek moo may déranger ci syndicat mm. dañoo mën a sos barki mu Mouhamed ñoo ko saaga mooy dox ñu jël neen toj ko ci li yaram ci ci kii ko daa may wax rek li ma xam li ma fekkee laaw mm-hmm. jël suuf di këppe ñu bëgg a taxaw ne Balla Gaye moo leen saaga Balla Gaye saagawul leen nuyoo la leen wax ñoom ñoo dépassé Balla Gaye Balla Gaye neen respect arbitre foofu taxaw parce que am na benn image boo xam mënu ko respe Ah, gis gis naa ñii la def loo na ko respect ma parce que dama la respecté rëg-rëg am baat bu ñaaw bu mu ko wax omar na ko boo ma ko waxee du ma saf ndax ba ngay galeeru ñëw nga sama kër di ma ñaan xaalis yegg na omar moo ko wax loolu na ko mënoo ma wax lu ma saf yoroo ba da ba dara fëkk ma ñu taxawaat di ko saaga kii deeg sa bàmmeel ñoom ñoo tooñ ñoo provoqué ñoo saaga barke alxuraan nag loolu rek ma wóor ci làmb ci ci wala bokk ci coow loolu laay wax. ci biir coow loolu moom euh, rek Reug lenn rek la wax nee na bi ñëwee bi nuyoontee moom lenn la mën a assumer responsabilité am ne faye na Balla gay ne ko sa waa gaynde gu màggat gi neena na faye na ko loolu à part loolu nag li ma la xam nga damay ku la koy daggal day joxeñ mais faire respect la ko wax. déjà manque de respect mënta weesu. Omar Kane na def nga ne ko gaynde gu màgget moom moom Sénégal ñëpp dafa am lu ñu koy bàkkee te war na cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax Reug Reug hmm. mu xoolaat boppam bu baax. ci ban kenn rafet bëriwul ñu ko rafetu ci Sénégal koo wax dafa beew dafa xamadi comportement am. Hmm. wallaay lazim bokk na ci ñi li gën ñaw ci mbëri te dañoo mën a sos dañoo mën a sos dañoo yor comportement boo xamante ni buñ la sosalee ba bàyyi la bis boo amulee xel dinga fa jaaree bàyyi ki ñu sosal te àdduna demewul noonu man da ñaanuma yàlla réew baa ma beew mais dal na leen trop ñoom seen fakkenkaa boobu am na solo yaakaar naa ne nag si li ñuy ñëw mooy que nee na euh, rëg-rëg bi muy bàkku sa sëriñ nee nañ ànd ak yow mën a leen kooku sëriñu sëriñu kii la moo koy xëpp gàllaaj nee na ñoo ñëw ba foofu ñu jël saw xaw ma lan sotti ko ko nee na yéene leen njëkk a sotti saw nee na ki lay xëpp gàllaaj moo ñëw ba bi muy bàkku sotti ko liñ koy sotti. kañ la lool. bi muy bàkku moom. kooku fu mu taxaw ak saw fu mu mën a toll nan la ma dafa sotti ko kooku kon li mu yor ci loxoom ku ne gis na ko li mu yor ci loxoom ku ne gis na ko bu dee yoon ngeen seen image dem leen nga natt ko fu mu toll. sottikati gàllaaj buggul ko sotti gàllaaj sottikati gàllaaj buggul ko sotti gallaaj koo xamante ni dafa bëgg dafa ñeme mystique loo ko jege barki Seydina Mohamed naa wax benn affaire baab du mi dama bàyyi ba fenn yor naa loo xamante ni foofu laa ko doon wërle damaa dox deux parts mu daw. mu daw moom bopp bi men mental ñoo neex a dafa daw sama ree ba alxuraan ma ne ko dama lay nax rek kaay nga taxaw fii moo gën. billaahi wallaahi wataalaahi. xanaa affaire boobu la wala affaire boobu ñëwul da nga doon kii. danaa la benn affaire nga xam ko. barki alxuraan pression rek laa ne ci làmb ci. pression mu si ree. ree yëngal. wataalaahi gis nga euh, pression. waaw. mi ngi tàmbale ci boy tuus. dafa la tàmbale ci boy tuus. xam nga tuus dafa neex. yëngal. supporters yi yuuxu. dañ la may courage. avant at bi sifflé ngay jaaga jaagari ñu lay may courage. yenn saa nga boo may sa bopp fit di daw di cappi cappi ñu lay may courage waaye moo daan ta. bu at bi sifflé. cey bis ay bu at bi sifflé. pare nga pare nga loolu loolu rek. Euh, loolu génne ñëpp làmb ji. man démb laa jàppoon ni gaynde la. Eh, gaynde la de. wallaay gayndem dafa des. rek. billaay ñemewum wala boog man daf ma ñemewul te man damaa jàppoon dafa am benn baat bu ma waxoon dama ne ah su ko andee de dinaa bëgg ndax dinaa xeex dinaa bëri mais nekkati yow lépp moom mujjee reetaan la rek. mais mais kan moo ragal. Sa Thiès nee na Reug Reug ñimew ko Reug Reug nee na Sa ñemew ko Balla Gaye ñimew ko ku ragal ko. c'est xam nga gémmiñ gu waxul dëgg wax la fa des <laughs> ku ñeme nit lan moo la war. bëre wala xeex rek. ok kan moo andi xeex. da kan moo fekk ji. yow yaa fekk ji mu song la. kan moo ni xeex. yow yaa dóor. ok nga xaaru fa xeex bi. ah boo mënee bëri xeex dalay sonal sax <laughs> yéen a koy wax. ah ñun koy wax. yéen yéen a koy wax. waaye gaa yi waxuñu ko. man dama gëm ni ñaar dafa am. Hmm. xat koor dafa am ak daw. Reug Reug billaahi wallaahi wa taala bu taxawoon. ay kanamam du ko fekkee xanaa mu takkutul. <laughs> <laughs> non am na mën ngaa bañ a mais dama ne bu taxawoon. Hmm. xanaa mu takkaytul. mais barki alxuraan laa lay waatal alxuraan laa lay waatal de Reug Reug ba ma ko xoolee sama dënn la xool moom ma xam ni kii xooluma moo tax bu ma ba ma xàcc ba ma xàcc rek mu waaye nag waroon na faa taxaw mu jëfe lañ daan wax man la ma waxoon sàmm naa ko moom moo sàmmul lu mu wax ndax moom moo taxawoon ne dana moo ma dàq xeex moo ma dàq bëre tuddoon na fi nag ay ay lit ay litteurs moo ñëpp doole moo ñu dàq xeex moo ñëpp gàllaaj yooyu yëpp taxawee bàkkee na ko mais nag àdduna dafa am fu muy toll ci nga yee sa bopp am na nag mbër fu muy tool day yaakaar sax moo mën ku ne fa la tolloon waaye da cee boole ñàkk bopp loolu moo ko sonal. mais bu taxawoon démb. Hmm. bu taxawoon démb. Hmm. Hmm. am nga sens nag yàlla suturaal na la trop barke alxuraan. am loo dencoon ci combat bi dencuma dara damaa bëggoon combat de bi ñuy wax. Ah, ñu gis ko ci bari dóor. xam bu ñëwoon simple rek simple la nekkatul dóor. <laughs> moom bëri bu bëri dóor. macha allah rëy na sëdd naan ñi mel ni kuy kuy xëcc mbaal. boobu ñam naa ko kuu ba mu tërëf mu sëgg di dóor bis bu ma aneeroon. wallaay la si na nga koy bàyyi foofu mais da ngay ni kii nii nii nii nii te dañu waxante dëgg kii dóor day xool nit. Ah. mais Reug Reug xoolu Sa benn yoon ay sëgg lay def di xool ci suuf tànk Sa Thiès rek ko sonaloon te moo ko suruxal ci suuf. alhamdulilah nag ba ñu amee ñoom mbégte ci benn fan waaye nag yàlla ma yàlla musal. di ree te yeggul sama xol. dem daf leen a dal. mooy lan daan nga yóbbu sa ndam mais xam nga ni ñàkk nga salaam bu yàgg. macha am na solo léegi nag saa dañ lay yeewi làmb ji jeex na fi mu ne nii nag yaakaar naa ne wax nga ci lépp li nga ci war a na wax mais avant làmb ji nag. production le Don King de l'arène le sauveur de la lutte sénégalaise dikkaat na ak ñun ci beneen affiche affiche bu nar doy waar diggante Reug Reug ak Sa Thiès hey combat de l'enfer combat de l'année muy am ce dimanche 5 mars 2023 ci arène mars la ñu wax deex est que combat bi duñ ko bëree planète Mars ndax coow li ci nekk combat bi le combat de tous les dangers diggante Sa Thiès ak Reug Reug ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk xaalisu lamb lañ Papa Kane moom mi nga xam ni champion la ca MMA waaye tamit lutte simple champion la ca lutte avec frappe champion ca waaye ki nga xam ne moo di Sa Thiès kookoy doomi Double di rakk ci Balla Gaye ndaw combat bu doy waar lii production ànd ak Makan Mbeng daal di koy delloo ministre des mu di monsieur Yankhoba Diattara neex mooy dañ koy may en direct fii ci Sénégal an sor bu mag bee def loolu mu di 1xBet bu dee bitim réew nag pay per koy seet